daf siy un grand rôle boo xam ne dafay woo nit ni du matin au soir dina wax bu leen participer si manifestation yi c'est quelqu'un qui est écouté kon léegi ñun tamit lu ñu lu ñu bëgg rek ñu ñaan le président de la république mu bàyyi ñu fi Habib J'appelle ko bu fekkee sax mun na ko jox yeneen ndombal tànk yu gën a pour que la population de Guédiawaye gën si sentir seen bopp. Wa autorité yi fi nekk rek li leen di wax moom mooy ñu wàcc sur le terrain comme ni Habib di defee rek euh, askan Sénégal social rek la xam ku ko mën a dimbali si njaboot muy jigéen muy mag ak ndaw ku leen mën dimbali rek. si seen njaboot rek yaa leen moom ndaw ñi tamit ku leen mën a jàppale seen i projet pour seen avenir suba rek yaa leen moom waaw ngeen baal ma waxoon naa ko waaw waaw Mohamed cherif Diallo sama tawaay fii tey dama kaa yëgul woon sax bi ma ko yëgee léegi nii nag dama daw si ñëw mais Habib Niang moom ni ma ko xamee rëccuwuma ko parce que bañ ma booleeg moom yàggul sama benn xarit bu ñuy wax Assane Badiane moo ma booleeg moom waaye nekk na nit koo xamante ni kuy dimbali doomu aadama rawatina ñun borom saret yi mu ngi dimbali bu baax a baax bañ yëg ko pour ñun sax moom mooy président fi mu toll nii ndax daanaka may nañu ay carte de na deux cent cinquante da ngay dem di faju ji doo yóbbu xaalis doo yóbbu dara di faju comme ñun doyatuñu dara ñun borom saret ba ñu ko affaire yi bu mu amee sax daf may woo téléphone nañu foo nekk ma ne ko maa ngi gétt ga si ko defee mu ne ma bu leen manifesté ma ne waaw sa la ñuy dégg te ñun dañuy toog tekk tekkaaral boobu ba léegi nii kenn mësu mësuñu gis année ñuy manifesté wu borom saret comme Habib Niang ñu koy sant di ko gërëm yàlla sunu borom taxawal teewaay bi te Macky Sall na xam ne Habib mi na ko gën a ko bis bu ko doolelee ñun ñu ngi ci ginnaawam ñun ñu ngi ci ginnaawam ñun borom saret moom doog la ñuy jàppale wuñu keneen ñun boog ñun ñun borom saret yëpp nag te ñun ñun dañoo déggoo yàlla dimbali ñu fii ba dëkk àll yi yëpp dañoo am groupe whatsapp ci région yi waaw ñun nag si ngeen ngay seen ni lii nañ kaa yéex a yëg mais buñ ko yëgoon nga xam ñun buñ taxee fii fii day fees dell oto du jàll oto du dem mais nag maa ngi koy bu baax di ko gërëm te Macky Sall na dooleel na ko dooleel dooleel bu baax ñun ñu nekk ci ginnaawam ci kàttanu yàlla su ko regee lay xam xam ne ñeneen ñi duñu dara ñun nag moom ñu ngi suñuy carte suñuy carte la ñuy tey suñuy suñuy suñuy carte